Hmm. wax dëgg yàlla après ma doog nag dem lu may def ma def ko keroog boo xoolee teel naa fa dem trop gannaaw daal hmm. yaakaar naa seetaan nga combat yi hmm. loo may wax ci xale yi ni ñu bëree nii waaw xale yi ni ñu bëree Babacar damay wax ci ci principe d'abord balaa may wax ci xale yi parce que principe xam nga ñun bawal ay tabaski ak gàmmu yi fay am Mm-hmm. mooy jàng yi am comme màggal reefan beeg yooyu euh, foofu la retrouvaille bi am wala mm-hmm. ñëpp di daje mm-hmm. moom nag dafa bokkoon ti promoteur yi nga xam ne saa yi bu waxtu woowu jotoon rek dafay dafay dafay organiser ay làmb lu mel ni ay ay booy booy yu bari booy bawol ak booy Dakar yi fii waaw gis nga ne bëri nañu foofu teg na fa ay làmb ak ku meloon ni Daouda Sarr Daouda Sarr mu daan ànd ak Badajon Badajon waaw ñu daan tëg ay làmb ñoom ñoo tëggoon amoon na Bandia production Bandia production ah. yaakaar naa guy gi njaaxum bëri bien sûr yeneen mbër yu mag dañuy bëri foofu mhm, Youssou Ndour bu Balla Gaye bëri na fa ak Nokia ma ngi noonu mhm. donc tey ñoom foofu lañ jëkki avant ñu ñëw fi président mhm. bi mu ñëwee vraiment gis nañu def na fi ay sourire neex surtout stadium Iba Mar Diop bi ku ne gis na ne ni mu ko daan feesale ni mu ba tey mu agsi fii dañu koy ñaanal rek parce mhm. que xam na xale yi moom. président xam na leen waa bien sûr parce que ni mu boole nii boo gisee combat yi. waaw combat neex la. wallaay wallaay ay jël yu da nga ciy gis technique da nga ciy gis xeex da nga ciy gis. bëre daan yu rafet quoi. Mhm. donc kon moom ak Assane Ndiaye ak fallu Fallou Ndiaye. Mhm. dañu dañu xam xale yi ñuy booleel ko ak yeneen promoteurs yëpp quoi. parce que vraiment. bu ñu organiser da ngay gis ne xale yi ñuy boole. dañu am publique dañu mën bëre. dañu mën xeex quoi. voilà. am na solo mais euh, combat yi nga seetaan nii yëpp. Hmm. ban moo la ci ban site moo la ci gën a marqué. waaw ñaari site gën na ma ci marqué. waaw mooy bu combat bu mujjee bii nii. mooy grand combat bi grand combat bi. mooy Samba leen ak Aydara. ak Aydara. waaw ak euh, Kële. Caatu euh, Dalifor. Caatu Dalifor kon. mooy ci tibb ponkal bi. merci Caatu Dalifor ak ak Amsita. ak Kële na mu tudd. Euh, Papa Sow numéro 2 la wala. booy booy booy jànqalaar la. waaw booy jànqalaar waaw waaw. xam nga xam lu tax mu mu lu tax boobu mu neex ma Babacar. waaw da mas toog fi ma ne. Mhm. bopp moo moo yore yaram. fu bopp ba aw. fa lay jaar en plus dama gis bu mu jàppee moom. waaw ki muy bëreel ko yi moo xaw ëpp tuuti. bien sûr gis ne bu mu jàppee. mooy bu mu laalante taxawul benn place. waaw bien dafay déplacé wu de déplacé wu. Mhm, gis nga ko waa ji songee ba dugg ko ba àgg xool nga. Mhm. dafa daw jëm côté ba lële waaw. bi mu sigee mu jàpp ngeen mu waaj gi nga bokk ba la sëg waaw daw xajal ko waaw xajal ko daa benn suur fi yoo xam mhm. ne yaa ngi fàttali booy def mhm. xajal mhm. waa foofu noonu mos naa toog fii di koy bien koy da nga ko da nga fay jógee nga fi nga taxaw waaw bu fa jógul kon waa ji daanu daa ji mën naa yem ci tànkam sax merci beaucoup mais bi muy def action bi da ko uh-huh. bës bopp waa da ko xëj ba pare bës ko daw dem côté bële daw dem bële waa ji fii la daanu moom xale bi maa ko xam ak a mën a bëre mën bëre mu nga dëkk ba Lagros dem naa ba Lagros seeti ko fa daanaanu bëre kat yaakaar naa seetaan naa la direct démb waaw wax na ba kii ma wax na dëgg waaw waaw bërki démb bërki démb dama koy conseil day waxtaan ak man mhm. bi mooy septième com huitième combat benn defet la benn defet la am noonu dafa mën a bëre booy bi ngay wax sànq nii mooy te mu cap ñaari ngeen mi mooy combat bi ngay gis nii moo tax ma ne la xale yi promoteur yi mooy caat Dalifor moom ñoom kaw Cissé ko loolu jël bu rafet la daan tamit quoi waaw boo xoolee mooy jàll noonu voilà mu ngi noonu mhm. encore mhm. tamit grand nga xool moom ni mu téye pourtant ki muy bëree la ko ëpp ah boo dee xool image yi nii grand zal. waaw parce que moom ki muy bëree la ëpp moo sut am si tam moo ëpp moo sut mais xool oh. parce que moo ko moo ko sut. waaw li ma doon expliquer fii ne nit mën na la ëpp poids. waaw ëpp la doole. waaw mais doon nangu mu utiliser dooleem ci. ci sa kaw mooy ah, di ah, la euh, maanaam Thiat Dalifort loolu la bëree. loolu la bëree. dafa jàpp ba pare ndengeñ waa mm-hmm. boo ko ndengeñee ne ko bul ñëw sama kaw. waaw waa ji du fan la dooleem di feeñ. dëgg la ok foo am du feeñ. léegi nag waa ji dafa jàpp. bi muy dóor ci la yóotuwaat benn loxo bi nag. dal di koy braqué. Oh. moom itam xam nga bi mu koy def dafa jóge fi mu taxawoon. waaw waaw bien sûr dafa dépla dafa def benn déplacement. dafa def benn déplacement indil. accompagné ko indil waa ko indil waa côté boobu. Mhm. gis nga bëre gis nga oh, waaw. dafa jóge waaw ñëw daw ci beneen côté bi mu mhm. indi fi mu taxawoon la daan si waaj la daan waaj wa waa fi la ko daan si ah mais attends boo bëre loolu la Babacar looloy bëre loolu loolu moom mooy bëre dëgg la mënoo bëgg waa ji ko bëggee daan est-ce que il faut nga déséquilibré déséquilibré soo jàppee te waa jàpp da ngay mhm. yëngal waa boo mhm. yëngalee rek faay am baa faay am loo def faay dafay am grand combat bi tamit moo nekk noonu nga koy gis noonu bi tamit ki nga xam ne moom mooy euh, xale bi nga xam ne nii wala non bii du grand combat bi indi ñu grand combat bi parce que grand combat la la grand di wax mooy diggante ay dara ak Samba Ndeleng. Samba Ndeleng waaw. boo xoolee moo nekk waaw. ay dara boo xoolee. waaw. mu ngi waa jaa ngi jàpp mi ngi dóor mais moom mi ngi bëre. waaw waaw man maa koy wax sax maa naan ay dara mu ngi wër bëre mais Samba Ndeleng mu ngi dóor. parce que bu jàppante amat amatee des hmm. fois noonu bu bu fekkee bëre bi tëjuwul rek dóor amu fa yoon. Hmm, bu bëre bi tëjuwul bul dóor. boo xoolee ñoom ñaar parce que hmm. daanaka kële moo jàpp ci ngeen mais ay dara jàppul daf ko bal rek. téye ko bal waaw mais saa bu waa ji dóor moom mu ngi fexe di bëre. foofu laay wax ne. so nekkal ci yenn position yi waji di dóor. Mhm. beurel boy beure mu bay dóor yi. waaw. ah ko <laughs> gis nga buñ la bëggee daal nga gis nga batay mu ngi top beure bi mom merci na fele mu bañ. mu daw mais taxu ko bay taxu mu bayiko koti tankam oh. bi mu mbootee mu suruxal ko dafa galé loxom rek suruxal ko presque action bi Modou Lo defal Ama ah genre action yi le genre action yooyu la soit da ngay suruxal nga war ko top <coughs> mais nak mom tam limu jël tankam diko nango tek ci tànk waji erreur la ah moom Aydara donte daan na mais donte daan na loolu erreur la. Mhm. parce que boo nekkee ci wetu jàmbur waroo tànkam. du mhm. dugg sa xarante tànk. sa xarante tànk waaw boo koy def Babacar. Mhm. waroo fa taxaw. mooy comme ama Sène ni mu def Sa Thiès. waaw waaw. comme ni mu def Sa Thiès. sentiré na ko ba mu dëgër. mu daw dugal tànkam rek bi tànk bi dugal bi mu koy. bi mu def ak soo waaw tegal ak tegal sees kee daa jël na fa taa tuuti. te loolu noonu waa ji bi muy mboot moom bu yóotu woon loxoom. Mm-hmm. par force day dem day dem waa ji mais da mbootu taqale ko rek mm-hmm. far moo tax mu jiitu sa waay ji woo ko jiital ko ok am na solo yaakaar naa ne wax naa leen ko kooku mooy grand Zale kon xale yi dinañ bàyyi xel bu baax a baax ci leçon yi ngi leen di jox aussitôt ñu gën a yokk seen performance parce que bëre technicité la bëre bopp la bëre xam-xam la sport en mouvement la intelligence moo koy def loolu moom moo ci ne maanaam fi ngay jàpp de s'équilibrer avancer yëngal baaje dugg génn xeex nii naa parce que loolu mooy tax ngay mën a daan mbër jël bu rëy wax na dëgg parce que mbër bu fekkee dafa la ëpp sut la parce que caat dali far encore une fois ki muy bëreel am si taa ko moo ko sut mais boo xoolee moom fexe na ba ci biir bëre mu jël boppam féete ci suuf ndengeeñ ci suuf mhm. féete ko ci suuf ba pare di ko mouvementé moo tax bi ci loolu moo ko mën a permettre mu mën a am ñaari ngembam donte moo gën a gàtt parce que yaakaar naa ndengeeñ boobu avantage lay doon ci moom parce que féete na suuf ba pare ndengeeñ ko ndengeeñ ko ay loxom dina war a mën a jàpp waa ji voilà kon téye na ci dën bi fan lay jaar. boole ko waa ji xàccee bay dóor ci la profité yootu jàpp. yootu jàpp bi mu jàppee ci la daw jaw ci beneen côté bi. Mhm. doora da ko mel ni la ko dóoraale zone bi. waaw bi sûr. comprendre jóge fi mu taxawoon boole ko wuteel et puis moo tax ma ne. Mhm. day confirmer li ma wax bëre sa yaram il faut mu nooy Babacar. Mhm. waaw waaw. xoolal booy bi ni mu wañaaroo mhm, yaram bu nooy moo ko may su yaram bi dëgëroon du man loolu du mën loolu waaye bëree mhm. souplesse daf ci baax Babacar il faut nga am souplesse mbër day am souplesse ngay am souplesse moom sa yaram même boo bëggee def action boo bëggee def action souplesse moo la merci beaucoup wàcc mais boo boo sa yaram bu dëgëree Babacar mhm. yenn technique yu bari doo ko man doo ko man def am na solo kooku mooy Grand Zal loolu prési production moo ko tëggoon mais Grand Zal tey li ma la bëgg a laaj tamit yaakaar naa ne combat yi ñu ngi taxaw wax nañ fii kere alburax gis nga affiche bi ci sunu ginnaaw li ci ne alburax ak li muy taxawal mais Gaston production tamit mu ngi taxawal ay